di la remercier ci sa présence. waaw maa ngi lay remercier di wax ne tey eh, bisu naxaar la eh, bisu tiis la ndaxte wax dëgg yàlla li dal may a mhm. eh, neexul benn doomu Sénégal ndax li ko dal dafa nekk loo xam ne ni rafetul mhm. taaruwul ba pare du mandarga Sénégal bi ñu xam mhm. te Maymuna nag nekk jàmbaar ci li muy liggéey nekk jàmbaar ci journalisme Euh, donc ñu agressé ko de cette manière euh, loolu neexul benn sénégalais. Mhm. et loolu moo tax ñu ñëw fii tey jii euh, pour condamner loolu ko dal ba pare di wax ne état bi war na jël ay responsabilités am. Mhm. pour que képp ñaawteef boo xam ne ni dal na ko ñu mën a xam kan moo ko def ak lan moo tax mu def ko ba ñu teg ko fi nga xam ne nii fan la yoon war a. jaar ak ku def lu ñaaw lu mel noonu. Ah, président xam nañ ne euh, nit ku euh, dëggu nga ci say prise de position euh, cette affaire qui est arrivée à Maimouna Ndour Faye ku nekk xam na ne dafa atteindre tey ji beneen dimension boo xam ne on voyait venir parce que vraiment depuis un certain temps le débat. public est pollué euh, ñu leen ci tuumaal vous les acteurs politique parce que am na ñuy jàpp ne bu ñu waxul lu leen neex duñ ko apprécier euh, am ñu yem ci ñàkk ko apprécier mais aussi les menaces elle en a subi dans le passé tey mu ñëw ba toll fii est-ce que aussi waruñu xoolaat suñu relation suñu rapport ak l'autre waaw mais bien évidemment xam nga tey jii li nga xam ne ni moo am non seulement kenn naxarlu dañ ko naxarlu mhm. mais également il faut quand même ñu bannir la pensée unique mhm. parce que ab dëkk bu mel ni Sénégal et la pluralité de l'information la pluralité des opinions et des dañ ko consacré par notre constitution mhm. donc c'est la raison pour laquelle euh, képp bépp doomu aadama boo xam ne ci réew mi nga bokk am nga droit exprimer ses points de vue librement keneen aussi am droit exprimer point de vue librement mhm. sans que ñu mën la gêner dans l'expression de ce point de vue là mhm. je crois que loolu mooy yoon te tous les démocrates non seulement dañu war a dénoncer cette situation là mais également dëkku liberté de presse. Mhm. liberté d' expression parce que loolu aussi mooy dëkku jàmm. Ah. je voudrais juste rapidement dire que je suis venu ici aujourd'hui et le cœur meurtri. Mhm. Euh, pour dénoncer avec la dernière énergie euh, cette agression sauvage, barbare contre notre sœur Maïmouna Ndour Faye. Mm -hmm. Et cette agression mérite d'être dénoncée, d'autant plus que euh, elle est le reflet d'une intolérance inacceptable mmh. en démocratie. Le Sénégal est un État où la pluralité des opinions a toujours été cultivée. Mmh. Et ce n'est que dans l'expression de cette pluralité d'opinions que nous pouvons cultiver l'état de droit, la démocratie et l'expression des libertés dans notre pays mhm. pour faire du Sénégal une terre de paix, de progrès et de développement. C'est la raison pour laquelle cette agression contre Maïmouna Ndour est une agression contre la presse, contre mais une agression aussi qui agresse la femme sénégalaise. Mmh. Vous savez que moi je suis un ardent défenseur de la femme sénégalaise. Ouais. Et je ne peux pas su supporter qu'une femme soit agressée. Mmh. Et surtout dans ces conditions-là. Ah, c'est la raison pour laquelle, oui, c'est la raison pour laquelle nous demandons à l'État du Sénégal mhm. et nous en appelons à sa responsabilité et euh, de prendre toutes les dispositions afin que les auteurs soient bien identifiés. et qu'il soit châtié à la hauteur de l'agression, non seulement contre Maïmouna Ndour, mais contre les femmes sénégalaises, contre la démocratie, mais également contre l'expression libre des libertés dans notre pays. Ah,